xam sa fal yaa sayda waaye di nuyu géwalu cheikhul xadim radiallahu taala anhu boo ko ko waxee sa xel day dem ci moom cheikh Mbacke Mboup maa ngi laa ziyaara jërëjëf Mouhamed maa ngi lay delloo nuyu bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wa salla abada ala alladi bihi lana alhuda bada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi sabidna wali wali barke borom taif ixwatil irada wal iman mbokk yi jàkkaarloo ak ñun ci biir réew mi ak ci biti réew mi ak ci mboolem support bu ñu mën a seetaanee la chaîne leader la Sen TV ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu amaan mbégte waat tabbiwaat ginnaaw bu ñu jógee ci sant ga muy màggalu Touba sukkur jëmee ko ci borom bi tabaraka taala ñu ngi ñëw nag ki bis bi nga xam ne nag ki yàlla taxawal noo man di toll digal na la inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi kon jóge nañ ci sant ga jëm ci màgga sallallahu wa sallam muhammad di am mbégte nag ci jataay bu bi nga xam ne euh, xam-xam am solo ak wayukat yu am solo yàlla na ci defal tawfiq di ziare cheikh mahamadul muntaqa bu ma ko nuyu naa amin yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi oustaz hamidoun diop xam ngeen ko bu baax a baax léegi rek incha allahu taala du ñàkk balaa ñuy jeexal dinañu dab ci émission bi waaye li leen wax sànq ko këru diine yëpp kenn ku nekk daa gis sa bopp ci moom euh, Cheikh maa ngi lay ziyaara di la laaj kan mooy njool màkk mu dul waan ak moom tey dul waan ak Mamadou Lamine mu dul waan ak moom mooy yaayoon nen alimatu saadiya nampal yaa rasulillah Mamadou gun jaay maaleykum jaar budul wala nag moom yàlla du amal jaam tabaarakallaahu gis ngeen xaaji uh, àlla li mu ibbee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baatu olof la ñëpp xam nañu ko te mooy budul woon teeg yonent bi yàlla du bind jaam ñi law lam yalox fi fadail kawni talaatuhu tabxal bariyatu fi zalmaa yaa sayda kon mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ñu ngi ci weeram tabaqal bariyati fi zalma i allahu ndeysaan tabaqal bariyati fi zalma i allahu wallaahi sunu maam wax dëgg la mhm. ala ah, ñu koy nuyu nuyu ndax ndeysaan bu dul woon ak moom ndeysaan kon fu nu jëm déedéet Muhammad kon doo am du ma am wallaahi wallaahi du am njëriñ Cheikh suñu dund du am njëriñ mais suñu maam yi ñoo ñu jàngal kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne am nga ay maam mhm. waaye ñu dañuy bégge suñu maam yi nga xam dañu def sacrifice pour jàngal ñu kan mooy yonent bi Cheikh maa ngi dégg léegi muy wax benn béyat ci maam borom Touba. ci bëgg gëm bu góor yonent bi. ak euh, préparé bi ñu doon préparé li nga xam Mouhamed moo wara a plateau yu ñuy def. di di di. màggal mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ne xolo Mouhamed keroog ba ñu yónnee Jaafar mm-hmm. ba ñu yónnee Jaafar mu dem Éthiopie ci ci chrétien yi xam nga gàmm gi ndóoy mën nañ ci téeral li leçon yu baree baree bari wallaahi wallaahi parce que diggante jullit ñi ak chrétien yi mhm. xam nga dañu am maanaam jàmm goo xam ne dafa nekk ci suñu diggante ak bëggante mhm. gis nga yonent bi ci grandeur ci wane ne kenn du moom mhm. moom rek moo jaram màggal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg texe sang Makka ak Madina keroog bi mu ne saxaaba yi dem leen ci Najaasi yi nga rawale seen diine Najaasi moom ab chrétien la woon du jullit mais cheikh day wane kan mooy prophète arabe yi mhm. day wane kan mooy yonent bi moo tax mu ne leen dem leen ca moom dëgg la mhm. bokkuñu diine mhm. waaye nag buur bu maandu la du tooñ te du bàyyi kenn di tooñ ci kaw suufam kon dem leen nga rawale foofu seen diine cheikh àll bañ demee foofu ñu ñoo jàngale kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam najaashe moom nga xam nekkuloon ab jullit bi mu nekk seen diine ji mooy jën diine yan moo lan moo tax ñu ne yéen yéen gone yi nga xam da ngeen a weddi mag ñi yéen yéen saaga seen yàlla lan moo xew jaafar moom moo jàngale kan moo yonte bi mm-hmm. wala ñun ay nit lañ yoo xam ni dañoo réeroon mm-hmm. kun naa qawman jahiliyati mm-hmm. naabudul asnaam mm-hmm. wa naakulul maytata wa natil fawaxisha wa naqtaul arham wa nusiu jiwaara wa kunna ala dalika xata baasa allahu ilayna rasulan minna naarifu nasabahu wa sidquhu wa amaanatahu Muhammad boobu lañ xam kan mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni moom la àlla doon way léegi ndeysaan booba yaa sayda la nu xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xala najaasi yu islil ardi xadd ah. bala'u antum suyumun wa tayru shari lam yusmi tabarakallahu cheikh ah, xam nga ne ñu ngi ci weeru yonente bi sallallahu alayhi wa weer la woo xam ne araam na jullit réeroo ak moroomu jullitam weer la woo xamante ni araam na jullit tëkku ci moroomu jullitam weer la woo xamante ni araam na sax jullit di ci sol yére yu tilim ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam weeram dafa laaj sol yére rafet ndax euh, ni ko waxe woon an aatiro parfum wu leen baaxiroo cuuraayu leen xayiral buxóori gën ji cuuraay yi wa afrisu ngeen lal a sajaadaat sajaada yi ngir lan <laughs> takriman alal xuzami di ko terale doomu Abdallah Diak Amina Cheikh ñu ngi ci weeru njol màkk Mouhamed ñu ngi ci weeru njol màkk sallallahu alayhi wa sallam damay wax ni sunu mag ñi li ñuy baax baax baax ko kooku moo yor ci mukaay yi ñëpp dëgg la ku ñu fii tudd <laughs> nga yor mbooloo ñu di la tudd sallallahu alayhi wa sallam moo tax uh-huh. ndax lu ko yàlla wax wa maa arsalnaaka ila rahmatan lil alamin dañu laa wàcce ngir ngay yërmande ci waxu ko ci waxu ko ci africain yi de. wala ci américain yi wala européen yi. allah alam la ko wax. toute la création. kon ko yàlla bind. yaa ngi ci biir yërmande yi sallallahu alayhi wa sallam. jëmm jooju nag weer bii nga xam ne moom la ñu dëgmal mooy weeram. Eh, ndeysaan ba ko Cheikhuna al Xadim naan. wa huwa akmalul wara. xalxan wa xulxan daara wa misu xatlan yura wala mu yura fi ma bëgg Mouhamed dëgg-dëgg ñu bàyyi fa xel mooy. Hmm. lu ñu war a roy ci yonent bi te jamono ji ñu war ko ci jàng buy jikko uh-huh. ndax yàlla waxu ko màkk nga juddoo madinatu nga dem fa nga nelawee Abdoulaye Goula Amine daf ne ko wa innaka la xuluqin azim tu es certes d'une moralité imminente oh. te fi jamono toll nit ñi amatuñu lu ñu rus ku kuy def lu ñaaw sax yaay ëpp promotion maa ngi wax léegi ku baax ki ma ne ko Mouhamed Mbaye mi waxtaan ay vie mooy gën niiw ki nga xam ne dafay wax lu ñaaw wala leen kon nag war nañoo convoquer li taxoon yàlla yonente son salam muy jukko yu rafet ñu taxawaat ci ndax kat dañu ku yàpp ndawal bopp réer laamal sankaan am nañ référence nañ ci topp mooy ki nga xam ne yàlla def koo màggal ba ne inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabii yaa ayyuhal lazina amanu sallu alayhi wa sallam muhammad damay wax ni euh, yonent bi euh, bu ñu ko xamee am cofeel ci moom nag sunu magu réew la ndax sunu ay mag ñoo bind nandal ñu cofeel googu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba Sénégal tey ku fi bëgg yonent bi boo ko joxoon big ak fooy ni ko deseneel yonent bi uh-huh. ci bindu mag ñi lay sukkandiku daal di yonent bi cofeel googu nag mag ñi ñoo ñu ci suuxat ñoo ñu ci jëmbat tey boo doon bégal waa kër Cheikhul Khadim loo leen di bégalee <laughs> alayka salaam la yaa man ma salaam yaa muxtaar yaa sayyid gasolina. léegi dem ci yaa Seyda ndax kenn ku ne dama bëgg mu joxatal ma ko loolu la Cheikhul Khadim way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma bëggoon nga wax ma borom Njaasaan lan la wax yonent bi am di ma jàppam si di ma càccale Abdourahman borom ñetti jungaay <laughs> njaasaani géej jafe woon nam ndox Cheikh bukkunte julli ñaan ndox ma wala ngaan alaay laay la la laay laay la la Mamadu Rasulillah la la Julli la ñuy wax fi mu toll nii jóge nañu Njaasaan boo ma yóbboo yof tey loo ma fay wax ku yàlla yoon ni nga te ku ma yoon yoon mi wul doote. xam nga àlla xaaral. maam yi da nga dem Tiwaawan. Ah. non demagul. dem Laye da nga dem dem dem Ndiassane. waaw dem Laye da nga xam nga. Euh, xam nga li nuy dese ci waxtu bareetul te bu ñuy wax euh, juddug yonent bi jigéen a tax. te te li may wax ni dama bëgg yëpp bu ci duggee benn bu ne bu gàttee entités yëpp. yaa Seyda tënkal ma ko nga xam ne jigéen moom cër bi benn baytu Seex Seydil Seydina Muhammad bu mu dund benn baytu Seex Seydil Xaaji si bu mu dund ak benn baytu arab boo xamante ni daf koy bégalee kuy jigéen ñu xam ne nag juddu gi sallallahu alayhi wa sallam mooy borom jaarul ci góor ci yaay Aminatu la jaar moo tax ma bëggoon tey boo ñu bégalee Tiwaawan ci ñaari minute rek ñu daw ci yaa Seyda looy wax waa Tiwaawan ci cheikh bu la neexee damay des nag waa kër gi ay ca waaw foofu waaw léegi baal ba ñëw ci Tiwaawan fi nga bëgg ñu tëjee ko ci Cheikh Sarr gi <laughs> Ah. ñoom it. waaw kii mooy Ndoye caméraman. mooy mhm. waa fan. moom mooy waa Kaolack. man xam nga bàyyi. waaw fépp laa ñeme. jeex na bu ne ñaari minute rek. li la yàlla may ku ko yàlla may doo xaar leneen. li la yàlla may ku ko yàlla may. doo xaare yaa xalifa xalifa. yaa xalifa. jooy danaa jooy ngir ma xalifa mbay kon doyloo naa ko yàlla ak Babakar Allah yow foofu la ñu daanelee. doomi Cheikhina Cheikh Mouhamed Fadal Diak maamin taalibal xayaar. ndeysaan. maami ba xëy na wulu si bi nee na. ah. Cheikh Mouhamed Maloum na ko yàlla buur di fay ci barke saare alxuraan déglul ma wax la mel ni moom dootu am ci weer la nu bindoon turam ba wàllu yëpp di ko ñaan Cheikh Mohamed Fa mooy seen ilimaan dëgg la turam na la texel baayam way way bi ma amee fukki at ca la matal ah, génn xaw du ci ndigal mhm. ñëw soowu ngir toxal bokkaale yàlla ak caaxaan góor ga nee na alhamdulilah wa ilman wa tuqaaka zanazab jaalani jaalani min asli taaxa wal awliyaa yi li ashada Cheikh Sadou Sadou Abi nee na. ndeysaan bi ànd nii bi ànd nii bi abi. is kullu um saaytuhu min nasrabi wa annamal bayaani filumati ata alala una imal jannati <laughs> eh, la ila عليه def lu garaaw la de def def na mag nu ne def na ndaw nu ne tabaarakallaahu xaw ma ci kan waaye neex na ci man mi toog <laughs> ak ñi toog di déglu tabaarakallaahu ala euh, gaa yëpp kontaan nañu euh, lii la ñu soxla ci réew mi stabilité bi euh, kàddu yu mujj ci émission tay bi lan la <laughs> waaw de na maa d'accord ak yow mujj ci émission tay bi moom a gën a sa kaddu yu mujj mooy lan ba <laughs> xam nga li gaa balaa ngi ci làmmiñ uh-huh. te léeg-léeg nga dégg sa kaddu gu mujj nga wax sa kaddu gu mujj uh-huh. rejet bi loolay daw fanaan ëllëg Uh-huh. yàlla dogal neneen ñu ne ah pourtant ma daa xamante dee parce que ma fexe woon kàddu gu mujj la waaw kon nañ wax kan kàddu gu mujj si émission bi gën fi baax waaw mooy di sant ñëpp ndeysaan di gërëm ñëpp ndeysaan di jiital cant gi nag ci ki nga xam ne mooy Hache Bougane mm-hmm. di ko ñaanal yàlla ak yokkute rek ndeysaan di ko ñaanal saxaatu daare ni yàlla defal ko ci barke yonent bi mu law ba ci yéen amiin waaye bu loolu jàllee tamit ni ñi nga xam ne ñu lay àndal mm-hmm. di sama doom yi sax laay wax du sama gars yi sama doom yi mm-hmm. ndax doom lan say doom lañ waaw mu ngoog Euh, dinañ ñaanal yàlla. amiin yaa rabbi dinañ wax ne fi ngeen teg seen tànk fi la. ndeysaan li ma wax saa su nekk dinañ ko wax ca kër ga moom laa leen fii ci télé bi mooy bu leen ci gis seen bopp. Mhm. gis seen bopp doxal leen rek te lépp loolu def na ko la ci laay taala te yàlla kese kese mhm. loo xam ne ñàkk fay da may na la ko soo amoon fu la boo amee fu la am lu ko ëpp. am lu ko ëpp barke Seydina may salaatu salaam. kon maa ngi bég. Mhm. maa ngi kontaan maa ngi ñaanal sama safoor bi Mansour Haas Mansour ndeysaan. baax loolu dem ba léegi gisoo ko fu ma ko ne nii rek mu jóg. waaw. ko siyaar bu baax a baax a baax Maamataar sa jàmm yokk kontaan nañu Cheikh Alla ci disponibilité bi nga ñu may bégal ñu ci mbooleem këru diine yi nga xamante ne ñoo ne ci réew mi tabaarakallahu bu ko defee rek euh, nii la ñu koy defee bés bu jot incha allahu taala ba bésu gàmm ñu daal di waxtaane waat yonent bi salallahu alayhi wa sallam nii la ko jàppee ba suba tey nag Oustaz Hamidou Diop dama ko xaw a euh, tafu tuuti mu nekk ci yenn activité saa a dox rek service su Seexul Xadim lay dox ñaan yàlla jàmm ak salaam ak sutura yàlla nu ko yàlla defal ci barke yonent bi salallahu alayhi wa salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu yéen ñi bëgg lu taaru ànd ak qualité